waaw xam nga nga may ma tuuti rek ma ñëw foofu ndax euh, xëy na Juan Branco euh, li ko indi Sénégal mooy benn doomu réew mi moo am jafe-jafe ak état wu Sénégal un politique mu ne constitué wu nekk avocat mhm. war a ñëw defendre ko par rapport ak liñ koy jiiñ wala liñ koy taxal alors mais xëy na wax na wax ju ëpp bu njëkk si njëlbeen balaa moo ñëw fii bi mu ñëwee fii ñu aaye ko mu dugg fii Euh, yaakaar naa toll nañu fa nga xamante ne aussi gouvernement Sénégal il faudrait que ñu def attention si yenn yi parce que am na yoo xamante ne jarul coow dañ ciy indi coow ba nga xamante ne amul benn njeexital wala benn njëriñ pour askan wi pour nit ñi. mënoon lañ ko bàyyi mu ñëw dugg tranquillement ba mu fi njëkkee ñëw sax def li muy def génnaat tranquillement mais mënuñu nangu tamit nit di jóge fu nekk euh, néew sénégalais xëy na bugg ñëw salfaaje suñu ay chartu réew loolu duñ ko nangul kenn mhm. te mënuñu ko aussi cautionnel kenn mhm. ak ku mu mënu doon boo dee doomu réew mi sax nekk ci loolu di ko def mënuñu la ko cautionnel à plus forte raison boo dul doomu réew mi mais il faut ñu tenir compte aussi ci aspect relations internationales yi parce que jàpp nañ ko tey jii fu mu mujjee bàyyi nañ ko génne nañ ko expulsé nañ ko est-ce que amoon na utilité ñu jàpp ko. daa mel ni sax am na ci lu mu ci luñ lu ci am ah, parce que mm-hmm. leeraluñ ñu ko mais le mm-hmm. fekk que ñu inculpé ko euh, tu toppee ko lu bëree bëri. Mm-hmm. xëy bàyyi ko mu ñibbi. est-ce que amul une main invisible boo xam ne mi ngi mi ngi derrière cette affaire. waaw xam nga moo tax état dafay agir ak responsabilité. balaa ngaa def dara nga jël contour yëpp. maitriser données yëpp. doog a jël un acte mais jël acte ba pare deux jours ou quarante-huit après nga dellusiwaat ginnaaw si acte boobu génne ko. Parce que le barreau de Paris a commencé ouais. un à s'agiter. Donc il y problème. Mhm. Donc il faut que ñu éviter dëkk bi yu mel noonu. parce que ñun ñooy respecter bopp d'abord suñu bopp. Mhm. montrer que ne on est respect pour ñeneen ñi mën ñu respecter. Ah,